man maa ngi yaam ñoo bokk ndey ak baay. waaw comprendre naa loolu voilà ci suba laa xëy dem liggéey man je suis infirmier la polyclinique may xëy dem di liggéey si lañ ma wax ni ma sama doom dafa def accident maa ngi yaam ñoo bokk ndey ak baay depuis 6 heures matin ba léegi koor yi mënul loolu moo ma metti 6 heures du matin ngay daw fonk sa liggéey xale bi tëdd fii ku fonk liggéeyam la. responsable la papa feebar ba bëgg a dee. ñoom ñëpp di daw moo ci tey <laughs> yaa daaw la gaañu tey bi nii rey ko bu dee nii ah! rek ay nañu dee ñoo yaam ñoo bokk ndey ak baay démb bët ki démb rek ah, bët ki démb rek doomu kat madame Mané madame Mané di sa di sa sow ak man ay sa sow ñoo bokk ndey ak baay mooy suñu taaw moo ju mooy enseignante moo jur moo jur xale bi tëdd fii tey mooy sey fii moo yore seen waa kër ñoom ñëpp a ngi góorgóorlu mais ñoom ñëpp ñu ngi def ñu war a def xale bii nag barki dem na jël yaayam papaam yóbbu ko suñu beneen mu dem di ko pour jéem a dàq stress yëpp pour ko defar mu ñëw xëy di liggéey jëkkëram ma nga fee dafa yaa dem Dubaay démb dañ jóge seen kër ñëw ni maa ngi daw damay daw du ma gis sama maa ngi daw beneen yoon dinaa ñëwaat tey muy xëy di liggéey ñu rey ko ndax lan indiscipline fii la nekk elle comptable elle est gestionnaire la elle est comptable euh, au port au a trois enfants ñu rey ko nii si saa ndax lan ndax réew ma ne dong seen indiscipline